Cheikh Sidi Mokhtar wante di leen nuyu ci kàddu sëriñ Cheikh Bara Mati Lay mais mu kàddu gi jaare ci moom mu wax naa wax ci aw turam kon ñu di leen nuyu bu baax di jiital ci nuyoo boobu sëriñ Abdul Karim mi nga xam ne yàlla dogal na mu jiite bis bu tedd bii di bisu ñaan ñu di ko defal sëriñ Abdul Aziz tamit bis boo xam ne bis bu war ci ñépp la rawatina nun ñi mu jaboote ndax jëfam ndax jëfam mën nañoo wax ne ñëpp teg na ci seen bët kon sëriñ bi sëriñ Karim sëriñ Abdul Karim Cheikh Sidou Mokhtar mi ngi lay nuyu di la siyaar te di la ñaanal te di la sant ci bis bu tedd bii nga xam ne da nga koo taxawal tax ànd ak sarak yi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ànd ko ak taalibe yi ak bokk yi yépp itam taxawal ko sa waajur bu tedd wa ah, di nuyu itam sarak yëpp bu ñu ci tuddee sëriñ Cheikh Aziz mel na ne ñi ci des ñëpp nekk nañ ci seen biir ndax yaa jël liggéey bi teg ko ci seen loxo góor ñi itam bu ñu ci tuddee soxna Ndey Mbàkke soxna maam xari soxna maam Bousso daanaka mel na ni tudd nañ jigéen ñi ñëpp itam di nuyu sarka yi nga xam ne dañu fee teew yëpp nga bokk ak ñoom Serigne Bara dañu teew fi teewaay bu rafet itam di nuyu préfet bu baax te di ko jot li nuyoo sëriñ bi ak centam ak ñaanam ci président de la république di sakku mu jàllale ko ci moom moom mi ko fi teewal di Modou Mbacké di nuyu Abdoulahat meeru Touba di ko jot li nuyoo sëriñ bi moom it ak ay cantam ak ñaanam di nuyu maître Madické Niang di ko jottali moom it nuyoo sëriñ bi ak i cantam ak ñaanam ndax bis bii kenn ku nekk xam na jëf ji mu ciy jëf démb ak bërki démb bis bi itam ku nekk xam na ne teewaayam fii du gan ci kenn ndax nekk ci état ñàkk nekk ci état boolewu ko ak kër gi te itam loola la wéyal ñëpp teg nañ ci seen bët itam kon ñu di la jot li nuyoo sëriñ bi ak ay ñaanam ak ay cantam di nuyu maître moom itam di doom ci kër gi taxawaayam rafet lool ak Basiru Jaxate moom it wax dëgg di mbokk ci kër gi moom it taxawaayam rafet lool di nuyu itam Mor Ndiaye ak ñi fi teew ñëpp di nuyu mbokki taalibe yi bàyyiwuñu kenn ndax taalibe lu fi am mën naa wax ni ñoom ndax loo loo fi séen rek ñoo ko fi indi sëriñ bu amul taalibe mun a nekk sëriñ taalibe bu amul sëriñ mënut a nekk taalibe kon mën nañoo wax ne la sëñ Saliou waxoon rek du duma dem bàyyi leen mukk bu ma jiitoo ngeen topp ci man ma geesoo gisuma leen dinaa taxaw ndég leen bu ma taxawee ndég leen gis ne da ngeen a wàññeeku ma wàññeeku topp ci yéen jiital leen waaye tàggoo moom mënut a kon nag ñoo ngi sant taalibe yi bu baax. ci turu Cheikh Sidi Muxtaar di sant tamit nag wax dëgg yàlla Serigne Abdou Karim bu baax a baax ndax wax naa ko ko ci bëccëg nee naa ko Cheikh Sidi Muxtaar ba nga ko defee muy sëñ Touba du tey jii xaaroo ba ba nga xam ne itam sëñ Touba wis na ci moom nga soog koo def muy sa sëñ Touba ndax maa ngi fàttaliku sa wajur wu tedd wa boo masaan dem. Euh, mu Mauritanie wala fenn oto sax bu ñu la ko joxee soo ñëwee da nga koy yëkkati joxaat ko sëriñ Abdou Aziz ba pare yor say tànk di dox te loolu ñu bëri waxuma sax ñu jox la watan joxal la ko sa bopp waaye boo boo amee njëg da ngay dem jëndi ko waaye yow boo masaan dem ñu jox la wata boo ñëwee da nga ko jox sëriñ Abdou Aziz maa ngi fàttaliku am na oto bu ñu la mujj joxit nga ñëwee da ko jox si bi nga gisul sëriñ Abdou Aziz da nga ko jox Cheikh Sidi Mokhtar te itam lu mu la mas a sant lu mu la mas a sant tamit nag def nga ko te boole ko am ngor gu mat sëkk boole ko jàpp saw làmmiñ ak toog nga xam ni mën naa wax ni li xew ci jamono ji muy ay ñaari kàddoo wax ci kaw wax ci suuf yooyu xamoo ko sax far ba di ko def ndax nit mënut a dem ci dëkk bum mu te itam li may wax waa sayid naa illaa bi ma alim li may wax itam bari nañu toog ci tànt bi te ñoo ma gën a xam li may wax kon sëriñ bi sëriñ baa ngi lay sant bu baax ci fànn yépp nag mi ngi lay sant ci sa diggante ak sa rakk ya nga jaboote te su fekkoon ni bés bu ne ñu woo ko ni ko ñëwal lijjanti mu metti ci moom bu fekkoon ni bés bu ne ñu woo ko ni ko leneen mu metti ci moom waaye kat mosoo ko ni sama digganteeg diw mësta am kenn ci yow sa njaboot mësta jóg di ni ko sama digganteeg diw mosoo ñëwit ni ko diw ma nga béréb sàngam damaa bëgg ñu jëlandi ko fa kon nag loolu képp dafa doy ak cant ci sa diggante ak sëriñ te yaa ma wax ci bëccëg bi ma ñëwee ba wax la yóbbante sëriñ bi ba noppi nga ne ma moom de fu mu mën a nekk ndigalam rek la ñuy déglu ay taalibeem daal na xam ne ñoo nekk fii bu diglee lu def te duñu séente lu ñu tere digle ñu def nag bari na ñu koy def waaye ñàkk laa séente lu ñu tere te te tamit lu loo xam ne mën nga koo wax mënees na la ko waxal moo dul lu yomb te yow ñëpp xam na ne loolu yaa ngi ci sëriñ Abdou Aziz mi nga xam ne moom la ñuy defal bis bii tam di koo xam ne euh, toujours nit ñi dañuy wax royuwaay dafa amatul ak nangam nangam mais bis yu mel nii ñooy dafa naa ki nga xam ne moom la ñu koy defal bu ñu xoolee ci moom xool ci ay jëfam dinañ xam ne royuwaay am na ba tey ndax boo xoolee la mu defoon jumaada xool la mu defoon Touba Ñaani xool la mu defoon Mbaam Njegaan xool la mu defoon Bosra xool la mu defoon Mbàkke Kajoor te taxutoon mu gis ko ba ni mu fiy jógee bis bu nekk mu yaakaar ni ab liggéeyam tey jii la ko war a tàmbali kon yaakaar naa ni ñu mel noonu kuy xool ci ñoom di euh, di nga am référence te yi xew ci jamono ji itam ñoom nekkutoon ci ñoom ñoom dañu doon suturaalante dañu doon seeteente dañoo wóolante woon dañoo jàppante woon te loolu dafa mën nañoo du ma wax dafa jeex ci jamono waaye mën naa wax ne wàññiku na ci jamono ji bu baax baax bu ko defee nag bis yu mel nii dañu xool ci ñoom ñu xool fa ñu tegoon seen tànk ñu jéem ko fa teg ndax ku dul suturaal nit ñi yàlla suñu borom du la suturaal ku dul dimbali nit la dimbali ku amul yërmande ci nit ñi yàlla suñu borom du am yërmande ci nit ñi ku dul jéggal nit ñi yàlla suñu borom du la jéggal ndax nit ñi man nañoo wax ne ñoom ñooy alali suñu borom kon nag ñu bàyyi xel wuññeente awra bi nga xam ni dafa xew foo jaar nga dégg fekk koo xam ne yow da ngaa waroon bu ñu ko tuddee nga summi sa mbubb bu xeex te bu ñu yàqub daram yow yaay jiitu kon loolu xool ci jikko yi ñi nga xam ne ñoo sos penc bi xool ci jikko yi Cheikh Abdoul Aziz mi xool ci jikko yi Cheikh Sidi Moukhtar mi nekk ci kanam nit ñi yaakaar naa ne woowu doxin doo ko dox te léegi daanaka mën nañu wax ni doxin boobu mooy bi xew ci jamono te itam daara nag wëralu ko ludul wolof jaay day wax ne euh, ab jur boo ko yeewoon mu dem ba suur ba suur ba lépp rek fokk mu bajantu yomb ko métti gi rek sëñ Tuubaa def gi mu def lépp nga xam ne kenn wutuwul dara kenn ku nekk defa ni yow daanaka moo waral bajantu beeg fu nekk nga di fa dugg ak nangam ndax li ma doon def lépp sañ Tuubaa def na ndax boo xoolee tey jii benn réew wala kenn nit ci àdduna ku ñu la mën a tuddal nga sañcu dëkk amagul téeméeri at mu nekk deuxième capitale ci réew mooma kenn mosu koo gis ku dul sëñ kuñ la fi tuddal itam ak loo tedd tedd duñ la ne moo sañ ci dëkk sàngam fekkoon naka ay maamam sañ ko mu digg fekk leen fa rek waaye sëñ Tuubaa képp ba mën a tàllal fay dem fépp fa dara lu fi nekk moo ko fi def même pas cent ans dëkk bi nekk deuxième capitale ci Sénégal loolu sëriñ Tuubaa dong moo ko xéwali sëriñ Tuubaa yi nga xam ne am na ko adduna sépp da ci jariñoo réew mi da ci jariñoo waaye waaye ñi nga xam ne du sëñ tubaa da leen a jaboote ñi nga xam ne dañoo yaakaar sëñ tubaa ñi nga xam ne ay jullit lañ bu ñu ko yàq li sëñ tubaa liggéey sax dëgg la kenn mënu koo yàq waaye waaye mën nga koo gàkkal ndax ni nga koy gàkkale mooy bu ñu la yaree jaaree ci sëñ tubaa rek yaa ngi gàkkal yoon kon nag ñu góorgóorlu ci jàppante ñu góorgóorlu ci moyante wax lu ñaaw bi te waxkate yu ñaaw yi ñu leen di ñaan ngir yàlla jëmmi sëriñ tubaa ñu suturalante te xam ne ku suturaal lu kenn yàlla du suturaal ku dimbaluwul kenn yàlla du la dimbali ku yërëmul kenn yàlla suñu borom du la yërëm di dénk nit ñi ñu teg seen tànk siraatal mustaqim ñu sax ci jaamu yàlla ñu sax ci liggéey ñu sax ci mbooloo nekk benn ndax lii moo nekkoon tànk Serigne Touba Cheikh Sidi Moukhtar mii bi mu fi yegg seen loolu la wax bëggatumaa dégg tijaan bëggatumaa dégg mutu bëggatumaa dégg leen ne benn la moo am benn faatiha moo am kàbbar yi yenn la sunna yi yenn la farata yi yenn la ba pare nag di ko dox di ko jëf di ko wax waxu ko ci làmmiñ rek da koo dox di ko jëf di ko wax ba àdduna sépp teg résultat ci moom ñu dem ba jëmmi jamono sax màkk gi nga xam ne mosu noo bokk sax bis bu nu wari mbaa bis bu nu tabaski nu dem ba bis ñëw ñu bokk ak moom tabaskiyeen ko ne kon loolu lépp liggéey bu rafet ba nga xam ne sumbal na ko suñu borom sumbal na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sumbal na ko Sëriñ Tuubaa ba Sëriñ Tuubaa fekk ko ci mel noonu ku ko am war ngaa xoolaat sa bopp te defaru te xool ci moom ndax lu nit di am am na ko te Sëriñ Tuubaa rek la dëgmal kon nañu dëgmal Sëriñ Tuubaa ci ginnaawu Cheikh Sidi Muxtaar te def ko muy kilifa ndax yàlla moo ko def muy kilifa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 ba mboolem lépp lu mu naal mu àggale ko te ànd ko mboolem njabootu borom Touba sëriñ Abdou Karim Mbacke ñoo ngi lay sant bu baax Mbacke di sant kilifa yi tedd yi fi toog tàmbalee ko ci Cheikh Baara Karim doon seex Baara laa doon tudd léegi mboole seen ñu ngi leen di nuyu di leen sant suñu sañoon kenn ku ne dañuy jaar si turam. dem siyaare ko waaye nag waxtu wi moo ko mayewut kon ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di sant maire sëriñ Abdoulahat Ka di sant su préfet sëñ Ahmadou Fall di sant sëñ Madické Niang di sant ñëpp ñu fi teewoon ñëpp di fàttaliku nag jëmm ju tedd joojee ci melo mu tedd woowee mu nekk woon eh, sëriñ di sant mboolem kilifa yu tedd yi fi nekk di fàttali ko Cheikh Abdoul Aziz ci meloom wu tedd wi mu fi nekke woon fan yii yëpp ñu ngi maas ci jàng alxuraanu karim di jàng xasaayit di def salaatu ala nabi di ñaan yu woowee sunu boroom tabaraka wa taala fu leen di ko jajjotal ko ci ku tedd ko kee ak mboolem ñu tedd ñi mu nekkal sëriñ Abdou Karim Mbàkke taxawaay bi rafet na lool ñu ngi sant di sant mboolem njabootu Cheikh Abdoul Aziz muy doom nag di sët di góor di jigéen jëmm ju tedd joojee fa mu tegoon bëtam Mbàkke foofu rek ñu gis ngeen teg fa seen bët muy sunu borom tabaaraka wa taala joojee nga xam ne toppoon na ay kilifaam toppin wu sell ba làq si ngërëm la tàmbali Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ba ci Cheikh Mamadou Moursala euh, maa ngi fàttaliku su ma saa bàyyi ci tool yi liggéey ba noppi li nga xam ni mooy cër sunu borom tabaraka wa taala bu ko génnee jox ko ña ko sunu borom ba jox joxlu génnee la jëm sa njaboot ga mboolem njabootu sëñ borom tubaa seeni addiya man mi maa ko daan yóbbu yal na sa borom ba doole ay leeram te taas ñu si barkeem asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu nuy santaat yàlla bu baax bi mu nu baaxee nu fekke woon démb fekke tey di ñaan yàlla mu may nu fekk ëllëg ñuy jéggulu ci kàddu yi nu yëkkati ci sunu kanam kilifa yi toog ndax ñi fi toog ñëpp war na ma lotta ci toog seen kanam di wax ndax sama kilifa lañ waaye bu ñu ma jéggalee yàlla mën na ko yombal kon maa ngi sàkku ñu jéggal ma bu baax sëriñ bi ñu ngi lay seer bu baax di dolli fedd li suñ koolu téef ci yow ak sunu yaakaar di ñaan yàlla yàggal la fi te wéral la xam ne nun taalibe yi day nu jaaxlewun tiitu nu dara ndax yàlla dimbali nanu ba am nu wéerukaay yu mat sëkk sëriñ Cheikh Sëriñ Muxtaar Mbàkke ku muy sa kilifa boo tiitee wala nga ragal amum xel kon li may ñaan ñi ma ko war a ñaan muy sama mbokki taalibe nanu góor góorlu fexe lii sëriñ bi bëgg nu bëgg ko lu mu bëggul buñ ko xool loolu lay dénk samay bopp di ko dénk taalibe yëpp ñu ngi sant taalibe yépp ci taxawaay bii ñu taxaw ci liggéey bi ba bés bi àgg fii mu àgg tey muy njabootu kër gi Safinatul Amaan daayira nga xam ne ñoo lëkkali kër Sëñ Abdou gis nañ seen taxawaay bu baax ba ñu dalee waaj ba léegi mësuñoo toog mësuñoo noppalu ba léegi tey ñu ngi ci liggéey bi ñoo yor lépp kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal di sàkku képp koo xam ne ni bokk ko ci mbooloo moom itam te war cee bokk nga ñëw ci mbooloo moom ndax ndigal Serigne Abdou Karim mi moo nu ko jox te fas nañ yéene lu mu jox daanu ko jëfe di sant bu baax Saadatul Abraar kuréel bi nga xam ne sëñ Sidi Muxtaar moo nu ko tànn jox nu ci ndigal nu yor ko muy mbooloo muy lëkkali kër sëñ Baara gépp ñoom ñëpp taxaw nañ ci bis bi kenn ku ci nekk la la ci war a def nga ko ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di leen soññiwaat nag nu gën a takkuwaat xam ne ko am lu kenn amul war ngaa def lu kenn deful te yàlla dimbali nañu am na lu kenn amul Serigne Cheikh Sidi Moukhtar faat na kenn amatu ko Serigne Abdou mi kenn amatu ko kon nañ ci jàpp bu baax te góor góorlu di xool fi ñu xool lu ñu digal nu def ko lu ñu tere nu bu ñu fi fàkki maa ngi koy digal sama bopp di ko denk ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu itam Serigne Abdou Karim mi xam ne moo fi toog toogaayu wala ñoo tàmbali ñu di la jégglu sëriñ bi ci toogaay bi nga xam ne bokk nañ ko toogandoo ak yow ci kaw di nuyu itam doom yi sëriñ yi fi teew yëpp seex yëpp rawatina njabootu sëñ Abdoul Aziz gépp bàyyiwuñu kenn di leen nuyu nag ci turu di nuyu sëriñ le préfet de Mbacké le sous préfet de Ndam Modou Mbacké Fall mi nekk suñu wet di sous boo xam ne kenn ku nekk xam na taxawaayam ci dëkk bi waaye di nuyu itam kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp bàyyiwuñu kenn ah, dana jafe nag bu sëñ seex Ba ah, Baara Lahat waxee ba pare nga wax ndax moom da di nit koo xam ne nii bu waxee da du bàyyi dara wax dëgg yàlla li mu wax rek doyoon na daanaka muy waxi cérémonie bi ñëpp basé wu ci waxam ndax yàlla dimbale na ko damay wax ne may gi ko may sans sëriñ Sidi Muxtaar a koy jàppale. ndax nit koo xam ne doo jekki bis bu set nga dem ci ñaari màggal ñett te bis boo jëlee wax wax ñëpp jariñu say wax loolu ndimbalul yàlla la yàlla na la yàlla jàppale euh, ndax taxaw nga sëriñ bi taxawaay bu rafet ndax genn màggal goo xam ne nii am na ci dëkk bi wala feneen bu ko yëgee bu sëriñ bi yëgee baax na bu yëgul baax man damay rocceeku léeg-léeg dem ci màggal gisuma sax ndawul sëriñ bi ma jàll ca ruq jël sama téléphone ne ko kar ne ko fii de sëriñ bi war na fee teew am na ci koo xam ne ca toole ne la ko fekk waaye dañ départ naa maa ngi ñëw ngir ñëw teewal fi sëriñ bi loolu nag ku bëgg liggéeyal sa baay sa waajur mooy tax ngay doxale noonu kon sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax di rafet lu wax ji di sant sëriñ si sëñ Moustapha moom sëñ Alaaji Baara mi ak si léegi di suñu kilifa di xam ne lu rafet def nga ko ndax penc mi boo fi ni ko Abdoulaye waxee war nga fee ndax sa waajur war na fee teew ndax mooy sëñ Baara kon soo ñëwee dundal loolu bu luy amee wala lu fa xew nga ñëw kon sëñ Moustapha ñu ngi lay sant di la gërëm di sant ñëpp ñi nga xam ne nag ñoo fi nekk ñëpp ci turu nag monsieur le maire Abdou Lahad Ka moo waroon a jël kàddu waaye mu wax ne naa jël kàddu santal ko sëriñ bi santal ko mbooloo mi bi mu ñëw itam mu ànd ak conseil yu bari ñoo xam ne mën naa ne commune bi yëpp ñoo waroon a teew fii ak bureau municipal bi yëpp ngir sëriñ bi nga xam ne moo xewle tey muy sëriñ Sidi Abdoul Aziz ba tax na sëriñ Abdoulaye Abdoulahat Diop mu ngi ci délégation bi mën nañoo lim suñu bàyyi sëriñ Maawa Sall comme conseiller la ci délégation bi mën nañ ci limit sëriñ Baara Bousso mi ngi fi ci délégation bi la mën nañ ci limit sëriñ Xaadim Sambake mi ngi fi ci délégation bi la mën nañ ci limitam sëriñ Xaadim Diop moom itam di doomu sëriñ bi ci délégation bi la mën nañ ci limite Serigne Birane jaw di conseiller moom it ci délégation bi la man nañ ci limite ba tey seriñ Pape Fall moom itam ci délégation bi la mën nañ ci limite Serigne Saliou Diop ci délégation bi la mën nañ ci limite Serigne Birane Gaye ak Serigne Moustapha Ndiaye Gadiaga nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi fi woon ak leen ñi nga xam ne ñëw nañ fi ci gisuñu leen ci bokkuñ ci délégation bi waaye man ni ma ko waxee commune bi yëpp ñëw nañ muy mag muy ndaw ah ñu nuyu ko muy maître Madické Niang ak mi nga xam ne moom itam kenn ku ne xam na ko di bokk ci délégation bi ndax ci conseil municipal bi la di nuyu itam sëriñ maître Mbaye Dieng mi nga xam ne moom itam conseiller la maanaam mën nañ ko jàpp ndax commune bi lépp lu ñu def mooy sunu avocat di ñu ci jàppale kon moom itam ñu ngi koy lim ci délégation bi mën nañ ko cee boole. di lim itam suñ Baye Mor Ndiaye moom itam di kilifa goo xam ne lépp lu xew ci yoon yi moom itam mu taxaw ci taxawaay bu rafet kon Cheikh Baara mati lay mi nga xam ne mooy itam ñu ngi koy jottali sunu nuyoo di sunu xarit sunu lépp ah <coughs> gannaaw loolu nag sëriñ bi mi ngi nuyu sëriñ Sidi Mbàkke sëriñ Sidi Abdoulahat mu ne mi ngi lay sant di la gërëm li tax mu lay sant di la gërëm Abdoulaye jaar na ci tuuti moo di ba ñu nekkee communauté rurale la leen yàlla boole woon ngeen ànd di liggéey ak nun booba ba léegi tekki woo sa ndem sa nge sa sa sa laxasaay waxtu wu ne yaa ngi def lu rafet ak wax lu rafet ak def lu rafet ba mën naa ne bu ne commune bi conseiller bi nga xam ne mooy defar di law li puso bi ñaw mooy yow lu baax rek nga bëgg lu rafet nga bëgg ba bi ñu ñëw commune bi ñu ñëwee commune ba léegi laat nee na su ma nee toog Ndakaaru am fa une semaine ñëwul ci commune bi bàyyi la fi yaa tax ndax su fekkoon ne assuré woo intérim bi di ci def li nga ci war a def nee na kon man du mën a nekk Ndakaaru am fa ñaari fan ndax kon liggéey bi dana ci am jàmm waaye waxtu wala wanee gannaaw mu wóor ko ne yaa ngi fi moom dootu am jàmm dootu day daal di am jàmm am salaam xam ne li war ci liggéey bi yëpp am koy def te loolu man mat naa ci seede keneen mat na ci seede sa bureau yaakaar naa ne bañ naa ko ba damay wax ne mooy bureau daanaka muy bureau ñëpp ndax lu waay jaaxle foofu la koy réglé ca loolu lu baax rek la ak mënoon nga ne sëñ bee sama baay nga buux ko wala nga rax xax ko ca du ca man dara waaye dangaa ngaa jël ne taalibe la jàpp ne sëriñ bi ko fi teg bu fi tegoon leneen sax nga jàpp ca loola rawatina bi nga ko fi tegee kon nag muy rafetaay boo xam ne yaa ngi koy doxal mi ngi koy sant di ko séeréer sëñ Abdou Karim di ko séeréer sa bokk yi teew fii ñëpp nee na daal moom mënulaa fay waaye sëriñ Touba mi am fay ca mën a fay yàlla na la fay ci barkeb sëriñ Baara ak Cheikh Moudou Fadel nee na mi ngi lay sant di la gërëm amul benn wax gannaaw moom la maa jeexal nag ñi ngi sant itam di ñaan ku fi nga ñaanal muy sëriñ Adama Samb muy koo xam ne conseiller la woon bokkoon ci commune bi daal liggéey ci commune bi amoon ci taxawaay bu rëy bu rafet yàlla def mu génn àdduna génn ko ci génnin wu rafet wu am solo nag mooy génnin wa mooy lan bisub àjjuma la ko génn di weesu weeru koor ananam doon liggéeyal yàlla doon liggéeyal yonent bi doon liggéeyal sëñ Tuubaa ci jàkka ji ba li ko dal ko ci jàkka ji mu génn àdduna kon kooku rafet nañ njort ci moom ñu ngi ñaan ci barke bi yonent bi barke bi sëriñ Abdou nit la koo xam ne nii ku jàppale woon commune bi la waaye ku jàppale woon sëriñ bi la ku jàppale woon sëñ Cheikh Bara Lahat mais la ci liggéey bii kon nag kooku bu génnee ca mbokk ci conseil yi bu ñu ñëwee dañ na jël sunu njaal tegaat ko seen loxo ñaan ñu ñaanal ko yàlla xaare ko àjjana ci dara ji Cheikh Mamadou Fadal barki sëñ Fall barki sëñ Bara ñi ngi ñaanal yi ñëpp nag di ñaan nag ku teew ci bis bii li nga bëgg yaa ko xam yal na la ko yàlla defal ci barke borom bis bi monsieur le maire nee na daal mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di xam ne daal li mu war a wax ci sëñ Sidi mii lépp mënu koo wax jataay bi moo xat waaye mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan di di di ñaan itam yàlla dimbale ko ba li nga xam ne moom lañ ko def ci état bi muy ndomba tànk gi ko yàlla takkal yàlla takkal yàlla dimbale ko ci ñi ngi koy sant gërëm sëñ Cheikh Aziz it ñi ngi lay sant ndax suñu xarit nga suñu lépp nga yaa ngi jàpp ci commune di ci wax ak li nga ci def lépp sëñ Cheikh Baara Laat wax naa ko léegi sëñ Cheikh Baara Mati leen wax naa ko conseiller laa koy wax démb rek maa ngi koy wax ñuy waxtaan ma ne ko yow ci conseiller commune bi nga bokk sëñ lépp loo xam ne commune bi ma nga ca maire ma nga ca ma nga cay tànkam kon nag ñi ngi gërëm ñëpp bàyyiwunu kenn ñi ngi sant ñëpp maa ngi jël sama ziar sama nuyoo jox ko sëñ Cheikh Bara Matiley mu jottalil ma ko sëñ Cheikh Bara Lahat mu jottali ma ko sëñ Cheikh Sidi Maxtaar yàlla na fi yàgg te nee naa man de si mbooloo danaa ko wax su ma wéetee danaa ko wax su ma jaamoo yàlla ba pare danaa ko wax ndax sëñ Cheikh Sidi dafa nekk fierté lislaam bi nekk fierté yoonu murit su fekkoon ni àddina bi jàng nañu ci moom aslëf benn jullit du tuur deretu jullit jàpp leen ni fii jullit yee tuur deretu jullit moo ëpp jullit yee tuur deretu yee feex loolu nag metti na lool diggante salafiste yi chiite yi sunnite yi li nekk xew na ci tey nag sëñ Cheikh Sidi Maxtaar tàllal loxoom ni bëggatuma dégg murit bi tijaan bi lu ma bëgg dégg jullit sama mbokk jullit bi kooku su fekkoon ni jullit yi nekk ci àddina bi yépp waxante nañu lool joxante loxo saafonte wax dëgg yàlla kon benn jullit du tuur deretu jullit yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla na fi yàgg te yàlla na àggale naal yi mu fi def yépp maa ngi nuyu bu baax sëñ Karim di nuyu njaboot sëñ Abdou Aziz yépp di jël sama nuyoo teg ko si loxo Cheikh Aziz mu jaarale ko sëñ Sidi mu jottali ko sëñ Karim mu jottali ko njabootu sëñ Abdou Aziz sëñ Karim wax naa la ba tàyyi ni la yaay sama sëñ Abdou Aziz ba ma gisatul sëñ Abdou Aziz jooyu ma ko taxawaay bu wat si man bitti bi guddi bëccëg ak jamono ji nekk yaa ngi si man tax na Mbàkke ragaluma dara ragaluma dara ndax yaa ngi may jàppale fu ma toll du tooñ kat waaye gëm naa ni ku ma song àgg suuf ndax yaa ngi may jàppale fu nu toll ku ma song du ma song kenn waaye gëm naa ni ku ma song àgg suuf ndax du ma tooñ kat te yaa ngi may jàppale bu baax yàlla nga fi yàgg te yàlla na sëñ Bara fayal nu lool nga yàgg fi te maa ngi nuyu sëñ Moustapha sëñ Moustapha sama xarit la bu sëñ Alaaji Bara waaye nag dafa am lu dox sama digganteeg moom mooy sëñ Alaaji daf ma bëggaloon boppam ma bëgg ko néew na ma toog suba ba ngoon gannaaw ba ma ñaanale sañ Baara ak sëñ Abdou Aziz te ñaanalu moo sañ Baara sëñ Alaaji Baara kon sëñ Moustapha aussi di ko dox ba mu mat sëkk ñu ngi koy nuyu bu baax di su ma limee damay juum waaye ngeen may ma rek ma seppi ñaari nit kenn ki mooy sëñ Baara di imaam sëñ Baara Karim dama ko soppal sama mbopp te mu soppalu man nee naa ni dafa dama yaakaar ni àddina bi li si gën a cher mooy jamaa sëñ tubaa mooy jamaa kon su ma suñoon waa kër sëñ tubaa yëpp danoo rey rey suñu doonul jamaa ku leen gi sopp leen te moom de jamaa la wax dëgg yàlla melokaanam rafet na lool sëñ bi sopp naa la te di ko wax ñëpp dégg ko di nuyu bu baax nag sama xarit sëñ Aziz Abo sëñ sëñ Abdou Aziz moo teg sama loxo si loxoom ñu ànd ànd bu rafet te mu koy matal sëkk sëñ bi li si des mooy bés bi xat na waaye man fii ma ñëw moo ma gënal fu ma am ñëwuma fi demeen du ma ànd ak kenn ren man képp maay ñëw ndax lu xam ni sama kër laa ñëw politique indiwuma fi man fii moo ma gënal lu ma am si àddina dama ni sëñ bi wax naa ko korog bi mu sukkee si yow tam nee naa ko mbàkkee soon moon bul dellu Dakar man ak Cheikh Ndiaye yam si yow fii lay toog lu ma fekk si tuubaa du ma ko wuti feneen kon man noonu laa mel sama bopp dama ko jox sama dama ko jox sëñ Touba ba mu jeex tàkk moo taxit lu politique yëngu-yëngu sëñ Touba woote ma woon gannaaw politique dem sëñ Touba ndax moo ma gën a lépp mooy sama àddina kon maa ngi leen di nuyu bu baax sëñ Abdou def na si man loo xam ne du ma mënuma ko fay géeru dundam si njaboot gi rek laa man topp di daw seen gannaaw di leen wan bëgg gu leen bëgg ak cofeel ba wane ni sëñ Abdou la mu def si man xam naa ko te mënatuma ko fay firnde gi rek sëñ Abdou Xaadir moo ma waxal boppam yow nga topp mu wax man ni ma sëñu tafaa toog man ak moom ak sëñ Abdou Aziz ma jëmm ji de xaw ma loo ko defal waaye amuloo fayam loolu nag sëñ bi kenn amul fayam te wax dëgg yàlla war na nu def la sëñ Abdoulaye waxoon sëñ Abdoulaye dafa ni gannaaw fóot bi nu dugal sëñ Touba moom si la gane si àddina toog ba doon sëriñ tubaa ñun su ma yaakaaree kenn ku dul yàlla su ma yaakaaree kenn ku dul Rasulullaahi su ma yaakaaree kenn sëñ tubaa du ma gox du ma jullit man noonu lay def man sëñ Touba rek la yaakaar. jiital ngor ak gëm sama gëm si Serigne Touba jërëjëf sëñ Abdou Aziz yàlla nañ ko yàlla fayal sëñ Cheikh Sidi Maxtaar yàlla na fi yàgg te wér. sang bi Cheikh Abdoul Karim Mbacke man Modou Mbacke Fall di sous-préfet bu Ndaam maa yu nuyu ci turu président la république Macky Sall di la nuyu ci turu suñu kilifa ministre intérieur Abdoulaye Daouda Diallo gouverneur Diourbel ak préfet bu Mbacke ma teew fi kilifa yooyu tey ci bisu sëñ Abdou Aziz Bara bi. di ñaan euh, nuyoo boobu ñu teg ko sa ñu tegal ñu ko loxo Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér di nuyu sunu sang yu baax yi fi teew yëpp bokk ci njabootu Serigne Baara bokk ci njabootu Serigne Touba di wax ni ñaan taalibe dong lañ ab jaam dong lañ fii ci guy mbind ndaxte ki ñu fi njëkk indi lay mooy sarku ju baax ji di Cheikh Sidi Ahmed ñu doon jàngandoo ca kaw la mu indi ñu fekke fii ñu gën njëkk fee màggal fii ci kër sëñ boobu sëñ bi mu ngi fi kon yal yàlla yokk leeram yal na yàlla tas ci barkeem lépp loo xam ne ni naan nga ko ci këram gi ci njaboot gi yal na ko yeggal ak jàmm tañ fekk ak jàmm di wax ni ñun benn message lañu président jox fan yi ñu war koo jottali njaboot gi yëpp ni bu ñëwee ci yéen day nañu wax ngeen ñaan yàlla def jàmm ci réew mi def jàmm ci élection yi muy le 30 juillet bi ñu jëm xam ni élection bii ñu jëm ay doomi Sénégal dong dong kese ñoo ko ñoo ko séq ba te ñëpp ñu ko séq ay nit ñu baax lañ acteur politique Sénégal yëpp a baax amul parti bi la bokk amul parti bi laa bokk ñëpp ay gor ñu baax lañ ñi fi wax ñii ñëpp tey sànq ñu dégg leen ak ñi ñu gis ci tant bi ku leen gis xam ne ay nit ñu sell lañ ñu ay gor lañ senegal lañ juddoo te ku ci yor réew mi di ko yore bu sell. ñëpp a baax kon yàlla fi yàlla def jàmm dañu xam liñ jëm du xëccoo du xare du xeex ndaxte ñun ñëpp fu ñu jógee ci tànk sëriñ bi lañ jëm fu ñu jàqee tànk sëriñ bi lañ jëm dinaa koy faral di wax ni daaw jéeg bi ñu wax feebar bu bon boobu ñuy wax fi seen ci Afrique naan dugg na Afrique bañ ko waxee ñëpp a daw utal Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké kon nag bu ñu jàqee ci moom la ñu dem bu ñu bëggee ci moom la ñu dem kon waaye bu ñu xiiroo bu ñu ŋaayoo bu ñu yàq suñu suñu def ci dara nañ nekk ay taalibe Serigne Touba te mu dëggu ci ñun te ku ci nekk nekk sa xol nekk sa jëmm ngi yéene ko sa moroom ñu ànd ci noonu jox jébbal suñu lépp sëriñ bi jébbal leen ko yéen ñi nga xam ne yéen ay Serigne Touba ci kaw suuf te lépp loo xam ne nii yaakaar nañ ko ci yéen dong lañ ko yaakaare kon yàlla def jàmm jooju defal ko ñëpp yàlla xëy ju ci jàmm xëy ci lu baax te yéeneen te lépp lu baax. ñi ngi jégalu ñëpp nañ baal wax jërë ngeen jëf wa salaam. ginnaaw bi ñu santee yàlla jullit ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi fedd li suñu njëbbal ci xarit Moustapha Cheikh Ahmadou Bamba di ñaan yàlla mu may lu ay at yu bari ñuy mën di teewee ci bis bii ñu jagleel Cheikh Abdoul Aziz Mbacké Mouhamadou Amine Khadimou Rassoul sama kàddu nag ci turu sëñ Abdul Karim la ak njabootu sëñ Abdul Aziz Bara yëpp ñuy déparé di sant mbokk yi ñu bokkal sëñ Tuubaa sëñ bi nee nañ ci suba ba léegi amul benn kenn ci njabootu sëriñ Tuubaa gi ku fi ñëw kon ñi fi ñëw ñëpp duñ mën a tudd tur yëpp benn benn wante ku fi ñëw gis nañ ko sëñ bi nee na mi ngi lay gërëm bu baax a baax biñ jógee muy sant njabootum sëñ Baara gii mu bokkal sëñ Baara taxawaay biñ ci taxaw ci bisu sëñ Abdou Aziz bi nga xam ne waa kër sëñ Baara yëpp dañoo jàpp seen bopp doomi Cheikh Abdou Aziz ci noonu la ko def woon xàmmewul woon doomu kii ak doomu kee wante loolee tam njabootu sëñ Baara ngi fayaat nañ ko sëñ ndax lépp lu ñuy defal sëñ Abdou waa nga sëñ Bara yi ñoo ci gën am yéene ci taxawaay ak yéene loole loole loole sotti ci am euh, mujj ko rafet jëme ci sëñ Abdou Aziz Bara kon sëñ Abdou Aram sant mbokkam yépp ñu bokk ba mu jógee mu sant taalibe yi sëriñ Cheikh Bara wax na ko léegi doole doole bu ko sëriñ amee rek taalibe la kon ñi ngi gërëm taalibe yi leen sant di leen ñaanal ci li tax ñu topp suñu gannaaw muy Sëriñ Tuubaa ndax ñun mënuñu amuñu attanuñu ñoom ak yéen a yem ñun rek lañ Sëriñ Tuubaa yaakaar Sëriñ Tuubaa fii ci àdduna yaakaar ko àllaaxira wante ñoom ñu xoolee ñu kon dañ noo raw dañ noo raw ndax ñun ñëpp Sëriñ Tuubaa lañ yaakaar wante ñoom ñu nuy jaaraat suñu gannaaw dañu xoolee Sëriñ Tuubaa kon ñooñu. yàlla na leen sëriñ Touba fay sëriñ Touba am na fay ndax sëriñ Touba euh, day day ku yàlla defar xam nga kenn mu doxal sëriñ Touba ci doomu aadama ndax sëñ Abdourahim Dem ñëpp xam nañ ko di doomi sëriñ Mat Dem mas na maa woon benn benn bayt mu a sëriñ Touba ko bind abatullaha salaasata mi alfin qabla irhaasi aadama waaw xam nga loolu murid rek moo ko mën a dégg waaye ne kenn koo ko déggoon mhm. bugg lii daa ne li xaraam ndax nit loo xamut wala boo koy xool ci téere ndax téere dafa am limite téere xam-xam la dafa am limite te téere boo gis bu dul yi karim doomu aadama ko bind te doomu aadama lu mu bind rek c'est ay manquement da cay am kon ku ne rek boo xoolee Serigne Touba ci téere doo gis Serigne Touba sëñ Tuubaa da koy xool ci yàlla yàlla mooy seet lu ko neex mu bind ko lu ko neexee mu bind ko damay wax ne su neexoon suñu boroom ak garab rek bu ko neexoon ne ku feebar boo ko laalee wér nga laal ko wér loolu xudratullaahi la kon nag sëriñ Tuubaa li mu am yàlla moo ko ko may Kaaba gee de xërëm lañ fa doon jaamu ca tey boo gisee ñuy wër Kaaba bi dañ mel ne xërëm lañuy ñuy jaamu ba tey wante pratique yi ak yéene ba ca nekk moo moo moo indi différence ndax ña fa nekkoon tam pratiquement xam nga wër kaaba aw xeer di ko laal di ko fóon moo ko fa tegoon yett yàllaa day day am ay apparence day nduróo wante Seyduna Omar radiyallahu anhu moom ñëw na ba wër kaaba gi ne aw doj doo nga dool lenn wante damaa gis sallallahu alayhi wa sallam di la wër ma di ko coroñ loolu jàngat la dafa bëggoon a wane rek lay wër ndigalu suñu borom ak di ca jaamu yàlla la kon nag sëriñ Touba ku ko boo xool ci téere doo ko gis waaye nag ku ne xam nga ne sëriñ Touba du moroom dégg naa barki dem benn kilifa boo xam ne sëriñ tubaab avant muy ñëw Mbàkke gi fi woon ñu sant Mbàkke gi fi woon est-ce que bii ñu am ñoom amoon nañ ko kon li ñëw gannaawam la ñëw. ca du sant ware mais jukko ji ak liggéeyal yàlla ak la ko yàlla may rek la kon nag ñun ñitam ak luñ mën a mel ak luñ jege Serigne Touba am na jukko yoo xam ne buñ ko mais men di ma nekk ca baar ba sax moonu tane ak luñ jege Serigne Touba bu fekkee ne am na qualité ak jukko yoo xam ne amuñu ko men di moonu tane ca dañoo am dañoo am charge xam nga nit ku ne responsable nit ñëpp yow bokkuñu koy yem ndax koo xam ne ku sant mbàkke foo dem buñ nee xoolu ñu ba xam am nga xam-xam wala am xam dañ naan sëñ bi ca kanam demal jiitalu kon kooka war nga am ay qualité ak jukko yoo xam ne ni buñ lay jiitaloo képp ku fa mën a ñëw dem du la xeeb loo tax ma ne responsabilité bi dafa gën a pesant dafa gën a diis ñun li may wax nag liñ naan jàjj la ci ñi ma ko war a def ndax dañ ne am mbooloo ca lislaam dajale leen buñ tooga buñ waxul lu ñuy delloo ci yàlla ak nu ñuy topp sëriñ Tuubaa ko day mel na bâche boobee leneen la kon nag sëñ bi loolu moo tax mu ne nañu delluwaat ci yàlla mawlaana tabaaraka wa taala xam nga yàlla moom dafa diisalul dara laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha laa yukallifu llahu nafsan illa ma ataahu yàlla lu mu joxul doomu aadama laaju ko ko ca moom lu mu nu jox woyofal na nu ko lu mu nu jox woyofal na nu ko ittaqullah xaqa tuqaatihi lañ jëkkoon wax muy lu diis bu jëkkoon dina woon waaye nag ittaqullah mastataatum kon may na nanu benn bunt kem kem ci li ngeen attan suñ borom kon nag heure bu ne li may wax ne 24 heures nga jël te 30 minutes consacre ko yàlla kooku yomb na yombee xam ne jullit bu ne juróomi waxtu war nga koy mën a julli 30 minutes ci 24 heures li ci des yëpp yaa ko moom sa bopp 30 minutes yàlla rek ko ko jagleel kon nag waroo sàggan ba 30 minutes yooyu doo ko dellu suñu borom ndax julli lu mu yàgg-yàgg 6 8 minutes lay doon kon nag sëñ bi nee na ñu delloo suñu bopp ci Mawlaana tabaaraka wa taala ca jaamoo yàlla nag ci dëppoog sunnay Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ñu bañ a nekk ay naafeq ma di dikkee wax na ko fi léegi ci problème mu jullit yi xam nga ñiy tuur deret ak ñuy lor jullit jullit yi rek la ci jullit la ëppee inna allazina fatanu al muminina wal muminat summa lam yatubu fa lahum azabu jahannam wa lahum azabu al harir xam nga loolu yéefar yeeg mushrik yi la yàlla doon wax mais jullit yi ñu ngi ci biir loolee ndax jullit yi ñooy leen jullit yi ñooy la jullit yi jigéen ñu kon nag aaya boobu mushrik yee ko doxoon ak ñu wedd yàlla waaye tey jii am na jullit yooyu ñu ngi ci biir aaya boobu kon benn waaye daf ne àdduna dafa gàtt mu ne leen àdduna pourtant li muy gàtt gàtt nee nañu àdduna daa gàtt ci àdduna bañ ko créé ba léegi nii ni mu guddee te jeexagut ñu ne daa gàtt kon nit ki nag ab dund moom nan la koy considéré kon dundum nit lan la bu fekkee àdduna daa gàtt te nit ki moom tuuti lay dund ci àdduna kon nag tuuti dund googee la ëpp da nga ko war a delloo sol borom Mawlaana tabaaraka wa taala ndax kat buñ demee yomel xam dañ ne loo jëfoon walaw shi'naa la ataynaa walla yàlla def ne wala walaw shi'naa la ataynaa kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minnii la am la ana mi min jinate jinnati wa nas ajmaina suñ boroom bu ko neexoon nee na waxam dëgg lay doon ba waxam dëgg lay doon te nee na sawara ak àjjana day fees man nag dama wax fee léegi nag bu sawara ak àjjana day fees te adduna bépp boo ko calculé woon fi mu ne actuellement nii rek 6 milliards quelque la te jullit yi 1 milliard 200 millions 300 millions lañ te ci biir un milliard trois cent ci jullit yi am na ñoo xam ne xaj na yàlla mën leen yóbbu sawar kon sawar li suñu borom xaj na ñi dem sawar gën a mën a yàlla nag moom mooy tax mu créé ñu mel ne Xaadim Mustafaa Séex Ahmadu Bamba bu yomal mu nekk layam yàlla ñun doomu aadama ñuy am di def science politique de géopolitique moom suñu borom ci boppam moo du dàq géopolitique. moo tax science politique kon mën naa créer loo xam ni la am naa lan jaxal mi ne dinati wanaas ajmaina joojee bu Serigne Touba ku mel ne moom mën naa laye ni kët yow du ma xool sa jëf sax ndax da ngaa bëggoon Serigne Touba loolu aw lay la xujjatu lillah nit nag loo ne moom nga bëgg waru ca am naa fekk waru ca am ngisal da nga koy liggéey ndax dama ne kuy liggéey yàlla mënoo tax yàlla ku liggéeyal Serigne Touba mënoo nax Serigne Touba kon nag te yàlla nee lépp looy def di ca xool bëtt nit ña ak ku la ca sant ak ku la ca tagg yàlla nee loolu soxla ko kon nag lu ñuy def nañ ci seet yàlla Serigne Touba bi ñu topp dañ ko topp ngir yàlla bañ a am gis sa moom loolu day ñetti baat yi suñu waxoon ñu delloo ko taalibe yi ndax man du ma ko jub ku joxe ndigal waaye sëriñ bi jub na jubaay boo xam ni moo na wax loolu ñu koy ñu koy jottalee di terminer nag ay sant gannaaw bi ñu ñaanalee suñu waajur alxalifatul am sëriñ si Muxtaar di ñaan yàlla yàlla may ko fatu gudd ak wéru yaram ca li Ablaye Mbaye peex wax ci moom léegi sëriñ Cheikh Bara daal wax ko sëriñ Sidi Muxtaar bu ñu ba suba di wax moom ay qualité du jeex te man mii moo fi toogee da ko sant tam am na yoo xam ne bu ñu ko mën naa bañ a am impact ci moom ndax kuy sant sa bopp da du da du da du neex ci ñeneen wala du neex a dégg sama bàyyi mel ni moom koo wax ku ne mën naa am nopp yoo xam ne duñ ko comprendre di sant sëriñ Sidi Moxtaar ci wuufu njabootu sëriñ Abdou Karim nee na mi koy sant baax a baax sëñ Abdou Karim Diagne nee na tam mi ngi sant njabootu si Abdou dëggal nañ ko topp nañ ci gannaaw muy góor bu jigéen di sant sëñ Moustapha mu alaaj Baara sëñ Moustapha man bu may wax ci moom xol lay waxe ndax wallaahi dama ko bëgg ci day day référence référence ci taalibe référence ci mbokk ci li ñu def lépp ak ngir sànn jaaxamul léegi bi mu ñëwee Mamadou Bara mi moom la ñu doon waxtaan day royukaay day royukaay ci ci ca nu ko neexoon mën na ko mel wante ak woyef ak taalibe boo gisee sëñ Moussa moom moom moom moom fees moom te kër sëñ Bara bëgg na ko fonk na ko ci amul caaxaan te nga am ñu wax dañ wax dara bu ne kon sëñ bi ñu ngi lay bu ci sëñ maam Cheikh Mamadou Fadil Cheikh Mamadou Bara yàlla na yàlla may fat ak wér loolu rek lañ ma mën a ñaanal li ci des lépp boo wutee fan dem li di sant maître moom parce ku ku bokk ci njabootu sëñ Tuubaa man dama njabootu sëñ Bara mais ku bokk ci njabootu sëñ Tuubaa xam nga ma liggéey nu mu bëggee sëñ Tuubaa ak nu mu fonk sëñ du alalam du dooleem du xelam lépp da ko mettre à la disposition sëñ Tuubaa te loolu man mii koy wax waxuma ko ko su ma amul woon ay firnde ak seede yooyu ma ko waaye lii ma koy seede moo doogal sëriñ si Moxtaar naa ko seede bu sëriñ Tuubaa waa jox naa ko seede particulièrement nag njabootu sëñ Bara particulièrement njabootu sëñ Abdou Aziz bâche bi dafa ma woo ne ma sëñ Cheikh kañ la màggal ma wax expliqué ko mu ne kon maa ngi jël samay disposition motul 30 minutes mu waat ma ne ma sëñ bi joxe naa ak accord jëm te fas yéene naa màggalu sëñ Abdou Aziz su mu ñëwee rek à 3 jours bu ñu ma ko waxee rek ma jël samay disposition ma déggee ci turu sëñ Abdou Karim njabootu sëñ Abdou Aziz ñu ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla bàyyi leen. li nga bëgg nag yaa ko xam ne foo jëm moom jàpp naa ne burul cent pour cent sax ci waa Touba quatre-vingt-dix pour cent yi day day day la jàpp loolu moom wóor na mu yaa ko liggéey sëñ Touba bi fay sëñ Touba doom la ci kër du tànqam lenn jëm ci kër sëñ Bara heure bu dem mi ngi sëñ Sidi Moxtaar mi ngi nem sëñ Tuubaa xam li mu bëgg di ko taxawu ci bare bare bare man ak moom guddi ak bëccëg dañuy toog di waxtaan damay dem këram di ma fa eewu dañuy toog waxtaan ci projet communauté di sant euh, préfet Modou Mbacke Fall turam bi rek boo ko déggee xam ne taal bi sëñ Tuubaa kon ñu ngi jël sëñ bi nee na mi ngi jël nuyoo bu tedd di ko teg sa loxo nga joxal ko président de la république te xam ne Macky Sall xaritam la wóolëreem la te Macky Sall xamal na Sëñ Abdou Karim bu baax a baax a baax kon sëñ bi ak njaboot si ñu ngi koy nuyu bare bare bare sëñ Abdou Lahad Ka maire Touba moom dama am cër yu bari ci moom pour gërëm autorité autorité en tant que maire de Touba sëñ nañ mi ngi lay sant di la gërëm di la yàlla jàpp na ci lépp loo xam ne nii yaa ngi koy entreprendre di la santam nga jàppanteeg su rak sëriñ si Mbàkke mu jàppante bu rafet toog naa yow ba tey am la ak nga wax ma ne ma keneen bu ma amoon comme adjoint bu sëriñ si boo wutu taxal nga woon bu te loolu moom moo koy seede boobu sëñ ci sëñ ci nekku beneen sant bi sama diggante yow la la ma seqee yow léegi laa ko doon nekk ci sëñ Mouhamadou Baaram yi te man damay nit koo xam ne na yëf fi goro yoo ma defalee danga moom yëf am yëf fi goro yoo xam ne bu lu ko nit defalee dalaa moom te sëñ laa kër séq daan ma loolu moom xam na man xam na te ba koy defal boobee xaj na am na ñu ko gën a jege xaj na loolee bu ñu ko yóotu sax naa bañ a sotti waaye nag ba mu ko yëgee moom moo déplacé bopp ñëw ci man wax ma la may wax loolu nag day lu rëy ci man kon ñett sant yooyu sëñ Abdoulaye danaa la ko sant muy sëñ Abdoul Karim sëñ Sidi Mbacke ak sama sant bopp li nga xam nag li nga bëgg yaa xam yàlla na ko yàlla defal jaay suñu lu suñu naam sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi nag moom mënuma tudd kenn waaye xam naa ne li sama xol jógu ci Abdou Karim rëy na rëy boo ne jëme ci mbokk yi mënuma koo di sant journaliste yi presse bi ñi ñëw ñëpp ngir. Euh, yóbbu màggal bi ak communication bi ba àgg ci seen chef seen directeur yi ngeen ñi leen di gërëm Ablaye Mbaye Pekh ci taxawaay bu ñu taxaw ci yoonu Serigne Touba fan yii rek am nañ benn conférence bu demee man ak moom kenn conférence ba lañ fiy tudd ñeneen dafa bari ba mu xaw a ba mu jëlee micro ba dafa changé li ñu naan changé les données ba mu waxee salle ba yëpp dafa mujj yënguwaat sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa Ablaye Mbengue xamaa mu jël daf ne ma daal fu ñuy tànn sëñ Tuubaa ñu fay tudd lu tuuti kur sëñ Tuubaa loolu daal neexuma moo tax ba mu ko jëlee ba mu jëlee micro ba ba mu waxee dafa mel ne leneen amatu ca la jiitu woon lépp dafa mel ne du du daal sëñ Tuubaa mooy xorom si te loolu seedeel naa ko sëñ Moustapha Abdou Khadre bi mu ñëwee tey suba kon nag Ablaye Mbaye Beex yàlla na la yàlla dëgëral ci bëgg Serigne Touba ko nekk taalib Serigne Touba maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant Serigne Cheikh Bass Abdou Khadre li li li tax ma coppati ko tey di ko sant mooy porte parole Serigne si Mokhtar te muy nit kuy liggéeyal Serigne Touba di liggéeyal Serigne Sidou Mokhtar sëriñ Cheikh Bass sëñ Touba ko ñor yoon wee ñor loolu moom mën naa ko seet sëñ Touba ko ñor yoon wee ko lu ko waaye mën na lu projet ñaar yooyu moom am na ci moom sëñ Touba ñor na ko yoon ñor na sëriñ Sidi Mokhtar bi nga dox bot baatam ñor na ko lool te mi ngi koy liggéey di ko taxaw taxawaay boo xam ni kenn xamul ko am te li tax wax ko nag billaay wallaay seede dong seede maa ngi nuyu sëriñ Touba sët Cheikh Bass Bara yi ci organisation màggal bi sëñ Abdou Karim si gërëm na leen sant te ñun gis nañ ñu jàppale seen bi na ngeen gën a jàppante nekk benn gën a jàppante nekk benn liggéeyal seen maam Cheikh Abdou Aziz Ba liggéeyal sëñ Abdou Karim ñi nga xam moo toog seen Aziz Ba di sant jigéen ñëpp di sant mbooloo di sant jullit wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh amin amin Mbakke amin amin Mbacké amin amin Mbacké